bismillahi irrahmani irrahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulilah bu ko defee ñu ñëw ci sunu téere boobu di durusu luxati arabiya ci addarsu saabi bu ko defee ñu liir li nga xamante ne ni moom mooy taxi bi nekk sunu kanam man haadihi haadihi aminatu ومن تلك تلك فاطمة هذه طبيبة وتلك ممرضة هذه من الهند وتلك من اليابان هذه طويلة وتلك قصيرة من هذا؟ هذا حامد ومن ذلك ذلك علي أتلك دجاجة لا تلك بطة ما تلك تلك بيضة أي بطة معنى بطة بيضة أي بيضة هذه سيارة المدرس وتلك سيارة المدير أساعة عباس هذه؟ لا هذه ساعة حامد تلك ساعة عباس ذلك ديك وتلك دجاجة ورفي نيو نيوات نك فيري ليغا خامني موي بادي مune man haadihi kii kan la waaye haadihi boo lu ñu lan la lu ñu jigénal la ismu ishaara la waaye boo xam ne dañ koo jigéenal mu ne haadihi kii aminatu amina la kon haadihi ñi ngi koy jëfandikoo suñuy junju loo xam ne dañ koo jigénal bu fekkoon góor la lan la wax dañ naan man haaza ndax haaza la jëfandikoo pour junju loo xam ne dañ koo góoral mu ne waman tilka kële kan la <clears throat> kon tilka dal dina ñëw mu ne tilka fatimatu kële fatima la kon daan nañ gis tamit tilka moom des koy junjee loo xam ne dañ koo jigéenal comme haasihi waaye nag tilka moom pour lu sori la bu dee haasihi pour lu jege la ñoom ñaar loolu moo leen wutale haasihi ak tilka ñoom ñaar ñëpp pour luñ jigéenal la waaye haasihi pour nga junju lu jege la mooy kii wala lii maa bu fekkente ne nag tilka la pour nga junj sori muy kële wala lële waaye ñoom ñaan ñëpp ñoo bokk fa ay ismu ishaara lañ mu ne haadihi kii tabibatun docteur bu jigéen la wa tilka te kële gis nga mu mumarridatun infirmière la gis nga ma ngoog tabibatun ak mumarridatun kon gis nga ñaar yëpp jigéen la haasihi ci jigéen la tilka ci jigéen la waaye nag li leen wuutale mooy jegewaay bi ak sori soriwaay bi gis nga ko haadihi kon ismu ishaara la haasihi mangoog pour jigéen la kon da nga naan lil mu annas mu annas mooy jigéen mangoog haadihi ismu ishaara lil mu annas lil qarib pour lu jege mangoog كذا ليل مفردة بور كن مانغوك بور كن بو فكي تلك لا تاميت اسم اشاره لا اسم اشاره نعم غيسنغا كوم هذه ليل مؤنث بور لو نيو جيجيلن لا مانغوك بور لو نجيجينا ليل مفردة بور كن لا واي نك ليل بعيده بور بور كانيك فو سوري ولا لو نيك فو سوري مانغوك mu ne haadihi min al hindi kii de ma nga bawoo Inde kon ba nga déggee haadihi nga xam ni ku jigéen la wa tilka kële min al yaabaan ma nga Japon yaabaan mooy Japon e hind mooy Inde mu ne haadihi kii de tawilatun ku njool la wa tilka te kon dafa sori ñu ne tilka qasiratun dafa gàtt man haada kii la mu ñëw ci ismu ishaara yi nga xam dañ leen a góoral mango mu ne haza xaamidun kii xaamid la mu tekki waman zalika kële kan la mu ne zalika aliyun kii alin la kon boo xoolee <clears throat> ci dars bi am nañ ci ñeenti ismu ishaara haza ak zalika hazihi ak tilka muy ñeent mu ne adalika dajaajatun <clears throat> ndax lële ganaar la maanaam ganaar bu jigéen mooy dajaajatun laa déedéet tilka lële battatun kanaara la mango mu ne maa tilka lan la mu ne tilka baydatun lële ab nen la haadihi sayaaratul mudarrisi mu ne lii mooy otowu jàngalekat bi wa tilka te lële sayaaratul mudiiri mooy oto <clears throat> directeur bi asaatu abbaasin haadihi ndax lii montur abbas la laa déedéet haadihi lii الساعة <coughs> عفوا لا ديرت هذه لي لا من ديرت هذه لي ساعة حامد منطر حامد لا تلك للنك ساعة عباس منطر عباس لا من ذلك ديكن لللي أبسق له wa tilka waaye lële dajaajatun <clears throat> ginaar bu jigéen la ginaar bu góor ak ginaar bu ak ginaar bu jigéen hakada ñu ñëw ci tamarin yi mu ne bu ko defee nga liir euh, baat yi di ñëw wala wax yi di ñëw ci tamarin bu njëkk bi ma mu nekk maanaam juróom juróom-ñaari juróom-ñaari phrase bu ko defee ñu daal di yem foofu incha allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته